asalaamaaleykum euh, mbokku internetu wasaare news ak euh, lii di Dakar midi tey jii ñu nekk fii si euh, place du souvenir mu nekk lieu bu symbolique fii si Sénégal nekk lieu bu mythique fii si Sénégal Abdourahmane Diouf ñu nar a présenté lii di partem nar a présenté lii di livre bi nga xam ne mu ngi ko tuddee Awalé fii ci place di souvenir di décliner lii di ambition politique am ak ay projet politique ñu nar a dugg yéen fii ci biir leen dégtal li fi xew. di nuyu di leen sant di leen gërëm bu ci kanamee ci discours bi dinaa ci ñëwaat incha allah ci remerciement yi euh, Pierre Edouard maa lay sant di la gërëm ci question yi euh, première question bi mooy par rapport ak timing bi euh, ñun dañu fas yéene créer parti politique boo xam ne bëgguñu nekk parti politique boo xam ne dafay événementiel maanaam local moo xew nga nekk ci local présidentiel xew nga nekk ci présidentiel législative xew nga nekk rek ci législative ñun dañu bëgg a tëgg beneen askanu Sénégal boo xam ni ñuy élection ak ñuy ñàkk élection dafa am ay valeur ak ay principe yoo xam ne moom lañu ñu war a doxee moo tax tey ñëpp di local ñi di local nañu jàpp ñoom ñu ngi ci céet ñun dañu nekk ci ngénte dëkk bi nag ñi di céet ak ñi di ngénte mën nañ fa dëkkandoo te coow du am na ku nekk topp sa agenda doxal li nga xam ne moom nga war a doxal ñu dañu fas yéene nekk parti politique boo xam ne du keneen du ñeneen moo ñuy xalaatal suñu agenda ak nan lañ koy doxale suñu agenda mooy Sénégal toujours pour jox la précision ci livre bi annoncé woon nañ ko mais dinaa ko waxaat fii livre bi dañu bëgg mu doon li ñuy woowee triptyque parce que man nekkoon naa ci parti politique gis naa Sénégal ni muy doxee li ma gis ñu baal ma ci wax ji candidat élection présidentielle laay gis mu am livre wala programme gisaguma bu dee dama juum ñu wax ma parti politique ci boppam boo xam ne dafa am programme d'habitude candidats yi ñooy am programme à un mois ou deux mois de l'élection présidentielle ñun ñu ne dañ jëm ci parti politique boo xam ne bu ñu demee ba ñor élection yëpp dañ ci bëgg a bokk notamment élection présidentielle 2022 ñu ne parti politique bi ñuy teg dafa am ñetti axe axe bu njëkk bi mooy nan la ñu mooñee réew mi mooy les institutions et la politique axe deux bi mooy suñu économie nan la ñuy fexe ba yor mooy patriotisme économique axe ñetteel bi mooy solidarité sociale nan la ñuy fexe ba réew mi ñi am lu ëpp jël ci la ñu am jox ña nga xam ne amuñu mu doon dëkk boo xam ne ñëpp dañuy nekk ci terrain te loolu jombuñu ñu ni nag première année bi 2021 dañuy génn livre ci axe bu jëkk bi mooy les institutions la politique moo tax livre bi boo ko xoolee affaire institution kese lay wax waxul solidarité sociale waxul économie incha allah bu ñu ko yàlla mayee en deux mille vingt deux ñu génne deuxième livre boo xam ne c'est exclusivement sur le patriotisme économique suñu réew nan lay doxe nan la ñuy fexe ba suñu secteur privé ngànk suñu économie ba nu ñu jéggaani yeneen yoo xam ne am nañ ko suñu biir troisième axe bi mooy solidarité sociale mooy mbirum chômage Sénégal mën nga liggéey cinq ans dix ans jékki-jékki ñàkk sa liggéey doo am cotisation sociale bu lay tax nga dund Sénégal booy dem retraite da ngay tiit parce que boo demee retraite sa niveau de vie dafay wàññeeku troisième livre boobu moom lañ bëgg a def incha allah en deux mille vingt deux triptyque bi mag ñetti livre yooyu nag li ci nekk dañu koy jox sénégalais yi ñu càmbar ko. buñ ko càmbaree ñun ñu xool li ci gën ñett yooyu la ñuy boole mu doon programme élection présidentielle suñu candidat incha allah en 2024 loolu li muy tekki mooy ñun tooguñu ba mu xaar ña des ñetti weer wala ñeenti weer ne dañuy def programme dañuy càmbar ci domaine yépp di ci caytu di ci waxtaan ak population yi ba bu jotee programme ba ñuy def fekk wax nañ ko fii wax nañ ko deux mille vingt deux wax nañ ko deux mille vingt wax nañ ko partout au Sénégal de l'est à l'ouest et du nord au sud wax nañ ko au niveau de la diaspora ba nga xam ne programme ba ñuy demee dafay doon suñu programme candidat parti mais en même temps dafay doon programme bi nga xam ne sénégalais yi ñëw bëgg ñoom ni ñu war a tëggee seen réew loolu mooy tontu ci première question bi deuxième question bi boo liiree livre bi dama ciy rendre hommage au père de la nation man Abdourahmane damay rendre hommage Senghor parce que fekke naa tuuti nag ci Senghor am na lu ma liir ci Senghor te gis naa ni mu sonne pour que Sénégal toll fi mu toll man Abdourahmane ak ñi ñu àndal dañuy rendre hommage Abdou Diouf ndax administration bi mu ñu jox stabilité bu mu jox ba Sénégal toll fii mu toll man Abdourahmane ak ñi ñu àndal dañuy rendre hommage le président Abdoulaye Wade ndax fi mu yóbbu Sénégal ci koom-koom ak gëm suñu bopp man Abdourahmane tendez bien les mains je rends hommage au président Macky Sall pour lii nga xam ne joué na ko jusqu'à président en tant qu'institution de la République maintenant sur son bilan nous ne sommes pas d'accord te dinañ ko wax ne on pas d'accord waaye dañu jàpp képp kuy incarner institution Sénégal liggéey nga ci réew mi loo xam ne dañu la sargal te ñi ànd ak Abdourahmane ñi ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak Macky ñeneen gënuñu ñu ànd ak Macky Sall wala keneen ak keneen ak keneen moo tax dañu bëgg ñun nekk une institution républicaine boo xam ne bu baaxee ñu wax bu baaxul ñu wax def ay proposition fi nga xam ne nag moom la ñun suñu génération amee responsabilité mooy ñoom bañ ci tolloo war a am indépendance am nañ indépendance mais mënoo leen laaj ñoom ñu mener le combat pour toutes les générations dafa am combat boo xam ne suñu génération la ñun tey boo déggee jeunes yi nga dégg femmes yi nga dégg ñëpp Sénégal ni ñuy waxee da nga xam ne ñëpp d'accord nañ ne dëkk bi nii muy doxee nii di suñu dëkk parti bii balaa ñu koy lancé fépp fukki lu fa diine nekk dem naa seeti ko damay jéggul ci ñi nga xam ne gisaguñ ma parce que dinañ ñëw seet si leen waaye wax bi benn la dëkk boo xam ne ña da bind jëmale càmmoñ nekk cinquante cinq pour cent de la population wala dix wala quinze ñooy jiite quatre vingt pour cent yi nga xam ne dañuy bind jëmale ndeyjoor ñu ne ci xam-xamu fukki nit ak juróom la ñuy basé wu pour yor réew mi loolu du dëgg du yoon dëkk bu nekk am na ñu fa nekk am xam-xam te jàng tubaab tekkiwul nga gën a muus nit ñi parce que muus ak intelligence du làkk ba ngay làkk moo koy joxe mais xam-xam ba nekk ci yow ak xarañ ba nekk ci yow. dinañ ci ñëwaat ci livre bi loolu laay woowee les angles morts de la république ma ne ñun nag dañu doon dëkk boo xam ne ñu di ko ñu di ko gérer dañ nekk di ko tabax damay wax démb benn xarit ne ko Emmanuel Macron ba mu nekkee président France ba léegi gisoo ñu ne am na fa autoroute bu mu tabax wala po bu mu tabax wala leneen lu mu fa def parce que ña ko fa jiitu dañ ko ko defal moom day gérer rek benn république ñun nag dañu war a tabax république te bu ñuy tabax république doole ñëpp la ñuy soxla xam-xam yëpp la ñuy soxla xalaat yëpp la ñuy soxla te loolu pour mu mën a nekk il faut ñu def beneen république tey sama xarit constitutionnaliste yi ñu ngi toog ñu ngi ñuy déglu ñenn ñi nee nañ ñu ngi quatrième république ñenn ñi nee nañ ñu ngi troisième république

di remercier public bi fi teew man la euh, Astou Dione nekk journaliste à la 2STV alors euh, di remercier surtout euh, docteur ci livre bu mu bind parce que livre bi 330 et quelques pages la donc ce qui veut dire que bëri na ci ay nuits blanches toog na lu yàgg di ko bind et je pense que képp kuy bind képp koo xamante ni rek. écrivain nga wala ngay xam nga ni c'est pas du tout évident donc ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax alors man dama am benn remarque d'abord balaa may ñëw ci question yi remarque bi mooy euh, tout au début de des pages dañuy seetlu que ni yaa ngi def sa biographie en quelque sorte parce que ñëw nga sa trajectoire euh, personnelle ñëw nga sa trajectoire ci état bi ci wàllum consultance également ñëw nga si ñëw nga également ci lu bëree bëri loo xamante ni en tout cas yow la concerné et foofu dañuy seetlu que ni mooy yi nga utilisé dafa accessible trop ci ki nga xamante ni mi ngi koy euh, liir mais bu ñu demee ba gis euh, fi nga xam ne yaa ngi définir awale dafa mel ni da nga utiliser ay termes yoo xamante ni il faut ñu tijji dictionnaire pour mën koo xam est-ce que euh, surtout nga xam ne ñu bëggee sénégalais yi duñu duñu liir la majorité est-ce que mënu lan moo tax différence de euh, style boobu nga utiliser euh, diggante fa ngay waxee ci sa bopp ak fi nga xamante ni yaa ngi définir awale foofu mën naa ni sax lu tubaab di woowee grandiloquence loolu nga utiliser parce que les termes étaient assez inaccessibles donc à faire première question bi may laaj mooy li nga xamante ni moo jëm sa compagnonnage ak Idrissa Seck parce que ku la xam ci lu bëri en tout cas foofu lañ la xamee mais dañu seetlu que ci page bi ngay waxee ci sa intégration si réew mi da nga ko tudd rek en bref dal di dem on aimerait quand même savoir euh, Idi euh, en tant que koo xamante ni leader politique la euh, yow sa perception ci liggéeyam surtout lu jëm ci wàllum SAES on s'attendait aussi nga wax ci xuus bu baax a baax parce que wax nga ci poste PM wax nga ci poste vice président bëree bari ay postes yoo xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal donc je m'attendais en tant que lecteur wala lectrice donc euh, ñu xuus bu nga xuus bu baax a baax en tout cas ci lu jëm ci sa relation ak euh, ki nga xamante ni moom moo di njiitalu parti bu euh, réew mi bu weesoo loolu leneen li nga xamante ni bëggoon naa ko laaj rek moo jëm ci yenn. constitution bi article 103 si tegu ko si lu bëri yoon mel ni dafa am ay failles yoo xamante ni bés boo toogee da ko bëgg a régler mais euh, ku ci nekk ci président avant ngay toog danga nga ñu diggoon loolu mel noonu bu ñu ñëwee dinañ tëggaat li nga xamante ni moom moo di anam bi Sénégal euh, nekkee jamono ji ndax dëppoowul ak suñu ay réalité mais ku ci toog ba tëgg ko da nga naan boppam la fi nekkaloon te sénégalais donc mënatuñ leen servir genre discours bu mel noonu wala mënoon nañ xool ba rek beneen son de cloche boo xamante ni dina uute ak ñun luñ fiy gis tout le temps ñu ne voilà bu ñu ñëwee dinañ soppi lii dinañ soppi lii dañ soppi lii rawatina lu jëm ci wàllum constitution nga xam ni sénégalais yi dañ ci am psychose jamono ji boo ne tuddee dudd si constitution rek lu ñu njëkk a wax mooy que ni daf koy tripatouiller pour xool moom da lu xamante ni da koy arranger moom personnellement. loolu mooy ñaareelu question ñetteelu question bi nag mooy rek euh, li xamante ni moom moo jëm ci livre bi en général bu ñu xoolee programme yi nga proposé euh, surtout rappeler que livre bi ku ko xool xam ni quand même c'est assez complet il faut le dire parce que laal nga ci institution comme ni ko waxee lu bëri mais day mel ni euh, benn répétition li ñuy gis ci programme yi nga xamante ni par exemple. Euh, parti Pastef bu mu euh, bu mu bu mu proposé ci wàllum solution day mel ni kon ce sont vous vous vous opposez même en étant des opposants vous vous opposez à l'opposition bon c'est ma perception mais da ngeen di opposé wu bien sûr avec le pouvoir et également avec l'opposition loolu aussi bëggoon naa xam programme yu ndiroo yooyu pourquoi pas ngeen bañ ngeen mën a booloo wala boog xool démarche yoo xam ne en tout cas euh, dina am différence par rapport ak euh, programme yi ngeen ñu servir et que c'est quasiment la même chose merci beaucoup. Euh, jërëjëf soxna Astou maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci question yi di ci jéem a tontu damay commencer ci fi nga xam ne moom nga terminer bokkuñu perception bokkuñu gis-gis. ñun dañu jàpp ne nit ku nekk boo amee ci yéen ci Sénégal bu la neexee nga exprimer ko bokk leen parti tekkiwul ne àndu leen ci lépp même njiitum réew mi nga xam ne moo fi nekk dina am na loo xam ne yéen ci d'accord tey programme parti yi fi nekk yépp parti bu ci nekk nee nga di nga sargal jigéen est-ce que ñun pour ñu wax ne dañoo niroog ñoom dañuy ñëw ne ñun duñu sargal jigéen da ngay sargal jigéen programme bu baax la ñun tam bu ñu ñëwee dañuy wax nii ñuy sargalee jigéen ci livre bu bind naa ci ne nii ñuy sargalee jigéen ñun raison bi nga bi nga xam ne solution bi nga xam ne moo ci jëkk mooy fas yéene nañu te dañ ci def ay étude ba xam ko bépp jigéenu Sénégal bu sukk jur doom ci Sénégal dinañ la jox li ñuy woowee prime de naissance maanaam yëkkati benn somme bu toll entre cent mille ba quatre cent mille francs jox la ko ne la jërëjëf jaaraama ci doom bii nga xam ne moom nga indil Sénégal pour mu war a bokk ñi di liggéey Sénégal ñu xool ne parité bii nga xam ne moom la ñuy wax góor ñi fexe nañu ba bi ñu demee élection dinañu def tête de liste yi ba nga xam ne la parité n'est pas intégrale ñu ne élection député yi par exemple dinañ ci ñëwaat bu ñu ko defee par circonscription 165 circonscription ci Sénégal dinañ fexe ba parti wala coalition buy présenté li nga am obligation non seulement ñaar ñi ngay présenté dafay nekk góor ak jigéen mais au moins sa moitié liste ay jigéen ñoo koy diriger loolu dafa fekk parité bu ñu fi fekk ñu ne parité bi baax na waaye bu ñu ñëwee dinañ ko changer amul ñun parti bu ñuy toppandoo li ñuy toppandoo kay mooy bëgg Sénégal loolu moom nangu nañ ci concurrence yow télé ba nga nekk chaque jour nga def journal 20 heures chaque jour Pierre Edouard def journal 20 heures chaque jour Mamadou Awa def journal 20 waa kan moo copier kan dafa fekk ne dëkk noonu lay doxee booy indi programme dina am ne yoo xam ne yéen ci d'accord am na yoo xam ne doo leen ci d'accord tey daf may permettre d'ailleurs ma wax ci parti politique yi ñuy wax bind naa ci ci yi boo ne dañuy créer parti ñu ne waaw parti bu bees may jëkk fàttali ne amu fi dëkk boo xam ne ci àdduna bi mu ngi dox te bu politicien donc Sénégal ñu ànd ak politicien ak ñu ñàkk ànd ak politicien politicien moo koy jiite parce que suñu constitution moo ne boo bëggee jiite réew mi doxal ko fii ak fii ak fii ngay jaar te foofu ngay jaar parti politique moo ci ëpp doole muy benn ñaareel bi mooy parti politique yu bari yooyu ñuy wax li nga xam ne moo ci yëngatu ba ñu xam leen bu ñu matee quinze wala vingt ca lay yem donc dara terewul nga am sa xalaat bu bees am sa yéene bu bees ñëw jox ko sa askan bu ñu la joxee confiance nga dawal l'expérience d'ailleurs da koy wane lu ma tudd turu kenn mais jël leen élection présidentielle bi passé premier bi ak deuxième bi ak troisième bi parti yi ñu bokk ci parti yi nga xam ne ñoo mujjee juddu ci Sénégal la ñu bokk donc mu jëfee juddu tekkiwul nga gën a yees jëkk juddu jëkk baax am na waaye mujjee juddu tekkiwul nga gën a yées te boo mujjee juddu man nga jàng sur les erreurs des autres pour xam lan moo gën sa askan nga présenté leen beneen élément bi astu mooy ku fi ñëw nax ñu mais ñun on peut pas être responsable des turpitudes des autres ku ñëw nax la mais ñun bu ñu juger sur la base de ñeneen ñi lañ lay def ñeneen ñi lañ lay def ak nañ ko dundee ak nañ ko dunde ñoom c'est leur responsabilité nit sëy na tas ñu ne góor bu baaxul la wala jigéen bu baaxul la mu sëyaat tas ñu ne góor bu baaxul la wala jigéen bu baaxul la mais mu sëyaat ñetteelu sëy sëy ba neex ñu ne kii moo fi gën ci jigéen wala kii moo fi gën ci góor donc la ngay seq ak a ki waroo boo xam ne moom ngay jugé keneen man Abdourahmane Diouf ak ñi ma àndal tey ci politique sama baat ci kaw musuma tooñ Sénégal musuma lekk alalu Sénégal musuñu ma jox poste poste boo fa nekkoon d'ailleurs nañ ma fa jëlee ba may gëstu nañ ma fa jëlee gëw ma ne mas nañ fa jëlee nit ci poste bu mel noonu ci Sénégal ci biir bu tooy noonu ci ku waxul deful nekk di liggéeyal pour Sénégal mosuma am passeport diplomatique salon d'honneur Sénégal xaw ma nu mu mel même SONES ba ma fay nekk di liggéey oto bi ma fa yor pendant les quatre mois du woon oto DG DG oto DG amatu fa woon ñu dem loué oto ma amuma privilège Sénégal Sénégal li muy yaatu yaatu yaatu amul terrain bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf bu xottu terrain wu cent cinquante mètres bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf amul kër bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf amul carburant bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf donc ñi leen tooñ lekk alalu askan bi di di naxaate di wuruj di combiner nekk fi boobu ba léegi man bokkuma ci donc ngir yàlla bu ñu ma boole ci ñooñu gënuma leen nag mais bu ñu ma ci boole man je n'ai aucun aucun aucun privilège aucun privilège même bi ma ñëwee Sénégal jéem a investir dem jënd rajo def ci samay moyens investir dañ ko nangu ak yeneen nag yeneen yoo xam ne ay hommes politiques ñu ngi koy dund ngeen koy dégg ma koy dund te waxuma ko parce que dama ci bëgg def ci ngor def li nga xam ne moom laa wasloo ak sama donc man je ne suis pas un privilégié de la République je ne suis pas du tout un privilégié de la République poste boo xam ne wala ministre amul école bu ñu koy jàngee nit ñi dañu rek mën na gëm gëm sa ay wax mais loolu moo tax ñu ngi nax nit ñi ba léegi mais terewul saa yu président la république amee élection dinañu am ko ñu fal parce que ñi ñu ngi yaakaar ne bien que ñu ngi leen di nax di leen nax di leen nax dina am ku mas a ñëw koo xam ni dina indi lu bokkul ak ñenn ñi lu ñu indi loolu moo ñu tax a jokk suñu parti politique fi may terminer mooy style d'écriture may naa la ko bu may raconter sama une partie de ma vie parce que dama jóg nag bëgg am dayo ci politique ñi nga bëgg a nekkal ci politique il faut ñu xam la tuuti hésité naa sax avant may bind parti boobu ci sama bopp ñu ne ma mais yow nit ñi dañ la war a xam ma wax ci loo xam ne jàpp naa ne exagéré wu ma nit xam tuuti sama jaar-jaar sama jaar-jaar rek mënoon naa ci bind ay livre mais foofu laa ci yem pour le moment mu bind ko effectivement ci style bu simple style bu loo xam ne nee nga nit ñi comprendre nañ nga ñëw ci li ngay wax li may wax ci Awalé dinañ ci ñëwaat présentation parti bi di ko wax ci constitution mais amu ci benn moo boo xam ne ñun sénégalais ñoo ko créé loolu lay wax le biais du prêt à porter institutionnel ci section yi am na fu muy wax ma ne ñun tey mënoon nañ sax jël lépp ci France mais bu français ki ñuy jiite président de la république la tudd mais nga wutal ko beneen tur boo demee suñu armée bu ñu ne général mooy jiite mais ñun am nañ buñ ne kii di jëwriñ bi ministre la tudde ñu wutal ko beneen tur mais ñun dañu am genre su intellectuelle boo xam ne nekkuñu sax di xalaat affaire yi nan lañ koy mën a adapté moo tax nag man li may wax ci livre bi boo tax libre boo xoolee lépp nuu laa ko tudde lu ma ci wax lu baax ci laa bokk lu ma ci wax lu bon ci laa bokk te ci yu bon yi dama ci bokk ñi nga xam ne bu may wax ci Sénégal ci constitution lañ ma jàngal université saint bi moo yooyu mooy moom laa am moom laa am keneen mënu fi bind leneen lu dul loolu quand tu dis que nul nul nul ne peut exercer plus de deux mandats constitutifs amul neneen noo ko waxee loolu fii watu si ci biir Sénégal donc loolu laa def yàlla def na tam juriste la juriste ni muy bindee am na bokkul ak ni sociologue di bindee bokkul ak ni littéraire di bindee waaye pour daaneel ci foofu démb fii la ñu toog di préparer cérémonie tey bi ñuy waxtaan ci lii ngay wax noonu te ñu bindee ouvrage bi am naa déjà un accord avec les arabophones ñoom ñoo jël engagement ne livre bi dinañ ko traduire entièrement en arabe pour képp koo xam ne arabe nga jàng Sénégal jàngoo tubaab nga mën ko lire xam lii ci nekk parce que ñoom aussi la ñuy waxal am na keneen ku ma proposé ne livre bi dañ ko war a jël def ko sonore def ko kaddu ci français ak ci wolof pour ñi nga xam ne jànguñu ñu mën a comprendre donc binduñu pour suñu bopp dañu bind pour suñu réew dañu bind pour ñu ñu comprendre waaye nag man je suis un produit du système que je moo yooyu laa am xam-xam boobu laa am ba leneen ñëw bu soobee yàlla jërëjëf. loolu nettali naa ko lu baree baree baree baree bare yàlla dimbali na ma dañuy wax naan sawe d'habitude kuy parti politique da ngay mer gàddu waaye xanaa Sénégal mar nañ ma seede ne ma man meruma gàddu ko xam nga lu may bañ lañuy ñuy dëkkal ñëpp ñu dem ba généraliser ko ba nga xam ne ku jóg rek ñu wax ko kooku ngay wax mooy Idrissa Seck ma koy rendre hommage ak ñamu àndal nekk naa ak ñoom nekk bu rafet ba ma fa nekkee traité nañ ma traité bu rafet ba ma fay jóge ma rajo demuma télé këram laa dem toog ak moom këram face to face mu may xool ma koy xool ñu waxtaan ci waxtaan bu rafet waxtaan bu jekk mu ñaanal ma ma dem man maa décidé ne bàyyi naa politique bu parti réew mi man maa décidé en toute responsabilité ne ànduma ak Idriss àndatuma ak moom boobu dara xewul crise amul dara amul man ma évaluer sama vie man jàpp ne foofu def naa fa la ma waroon a def te kuy waxal yàlla xam ne def naa fa la ma waroon a def raar na nga gis cadre bu nekk ci parti politique boo xam ne bu ñuy wàññi lu mu bon bon bu ñu doon wàññi juróomi nit ñi ñu xam ci biir parti réew mi xanaa bokk dinaa bokk ci juróom ñi responsable bu toy noonu ci parti mosoo dem élection présidentielle parce que jàpp nga ne ki kay dem moo ko mérité waxuma nekk député mosuma nekk ci liste élection élection législative waxuma dëkk ci liste bu ñu fal ma mosuma nekk man Abdourahmane ci élection législative mais loolu la ñëpp wër donc man nekkuma woon ci politique pour wut lu ma bopp gis nga dama leen di wax ne je ne suis pas un privilégié de la république loolu moom bind leen ko li ma am ci république bi te dinaa ko ko delloo mooy fa ma jaar am ay parents yoo xam ne amuñu doole école publique di ma tàggat di ma tàggat ba ma toog fii tey man wax ak yéen loolu Sénégal moo ko def ci man bu soobee yàlla dinaa leen ko delloo parti boobu te xam naa ne am na tey ñu fi nekk aw ñoom benn xaar yàlla waaye nag histoire moo changé tey dañuy bind histoire bu bees dañuy bind histoire leneen lu bees ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñoo koy bind tey ñun ñoo xew suñu génération ñoo xew suñu génération ñun ñooy indi lu bees mais nañ ñu may ñu wax suñu bopp mënuñu nekk tout le temps ñu wax ci keneen ak keneen ak keneen tey jël nañ suñu responsabilité ñañu daan waxal nañu am générosité may ñu ñun ñu waxal suñu bopp ñu déglu ñu ba xam lan la sénégalais di décider jërëjëf merci beaucoup. merci merci merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf maa ngi commencé di nuyu euh, docteur di nuyu sama collègue ak confrère yi fi nekk mais aussi toute l' assistance di wax rek docteur euh, ne ko euh, livre bi c' venu au bon moment parce que aussi Sénégal war ñu rek nekk dëkk boo xam ne dañuy identifier ci yenn acte yoo xam ne acte malsain laa ko mën a tuddee quelquefois ay violence la yoo xam ne nit ñu bëri dañ koy condamné donc li ñuy soxla ci homme politique leader politique li ñuy xaar ci moom mooy peut-être xelam xam-xamam mu bind ko def ay proposition loo xam ne peut-être buñ ci tënkoo dinañ mën a jëmale suñu Sénégal kanam loolu laay féliciter docteur parce que lire sax yombul waxuma la ak bind ce livre je pense que Euh, ñu bëri mën nañ ci sukkandiku pour pour pour peut-être développer suñu Sénégal j'ai euh, deux à trois questions bi ci njëkk euh, docteur mi ngi jëm ci livre bi par rapport ak ni nga ko tuddee ak li nga ci def ñu jógee ci concurrence dem ci concordance loolu nga bëgg parce que jàpp nga ne Sénégal li muy doxee ba tey dafa utiliser costume jamono boo xam ne daf ñoo ëpp mu bëgg a xam ba xam yow li ngay proposer sa idée la da ngay revendiquer paternité bi wala dafa am lu bu fekkee ne la leader politique yi fi nekk parce que le Sénégal ne se fera sans vous peut-être mais ne se fera non plus sans te bu fekkee ne xëy na lii bëgg nga mu survivre aux aux années il faudrait bien que même bu fekkee ne yow yor nga nguur gi ba bàyyi ko wala yoroo ko keneen ki ko yor tamit mu mën a gis njëriñ ci li nga xam ne euh, bind nga ko may laaj ba xam waxtaan nga ci ak ñenn ñi balaa nga koy euh, proposer genre assise politique boo xam ne dina nekk benn constitution boo xam ne buñ ci na Sénégal dina dina mën a jëm kanam bu fekkee aussi da ko am bu la ci inspiré wala lu la ci inspiré bëggoon naa xam euh, kan la wala lan la mais aussi ba xam mbubb moom it du bëri lool ci li nga xam ne mooy sunu ay mbagg est-ce que tamit lii nii euh, da jël temps wu étudier ko xam ne mooy baax ci ñun te it kan moo ñu wax que ne yow li ngay proposé mooy lu baax li loolu mooy la première question deuxième bi euh, concordance je pense que bu ma comprendre bien li nga bëgg wax mooy bu ñu demee élection présidentielle par exemple position ñi participer noonu la ñuy amee euh, pourcentage wala noonu la ñuy amee nombre de euh, ministres ci gouvernement bi nga xam ne am na li ma jaaxal rek mooy bu fekkee ne ñëpp a ngi gouverner kan mooy kan mooy rendre compte à l'heure du bilan aussi kan la ñuy laaj ay compte aussi une république sans sans opposition naka naka la mën a tëddee euh, parce que dañuy wax souvent que ne na pouvoir gouverner opposition opposé wu bu fekkee il se trouve dans le même gouvernement je pense que dina xaw a compliqué tuuti question bi Euh, concordance bi tamit bëggoon na xam la moo ko wutale ak le système Macky Sall Macky Sall il avait dit gagner ensemble gouverner ensemble xëy na euh, lii dañ koy teg ci papier institutionnalisé ko mu doon loo xam ne dafay am par A par B mais gis nañu que ne élection présidentielle 2012 Macky Sall mi ko gagné woon actuellement il gouverne avec ñi participé woon ci élection yooyu yëpp euh, de l'AFP à au parti mi en passant par le parti socialiste même PDS ñu ñàkkoon sax actuellement xëy na parti bi tuutul noonu ñi ñi fa jógee am nañ parti mais ils font partie de ce gouvernement ce que je veux dire mooy les responsables li ngay proposé ak li am quel que al Alpha il se retrouve dans le gouvernement lool mooy différence bi merci. Euh, jërëjëf Mamadou Awa. ñett ñi fi toog ñëpp ay xale lañ maa leen mag mais ku ci nekk am na ak yow histoire euh, Astou laa mujjee defal émission il y a à deux mois euh, bi nga xam ne ñu ngi annoncé création suñu parti politique mu doon un moment Mamadou Awa yow Sénégal yow rek laa fi mës a defal émission boo xam ne j'ai parlé de moi-même boobu yaa ngi ci beneen télé mu nekk aussi un moment fort. Pierre Edouard ba ma jógee SONES maa ngi koy raconté ci livre bi bien que tudd ma turam ci livre bi émission bi ma jëkk a def pour wax ak sénégalais yi moom laa ko defal donc yéen ñëpp yéen a ngi may accompagner ñuy ñaan yàlla ngeen continuer ñu accompagner pour Sénégal bi nga xam ne ci lañ jëm. ah dégg naa li nga wax ci euh, xalaat bi yàlla dafa def fi mu nekk nii gis nga man am naa jaar-jaar am naa xalaat am naa lu ma jàpp ni tuuti expérience la parce que yàlla nag may na mu ma dem fépp fu nekk dugg naa fa système politique bu nekk xool naa ko droit laa jàng institution bu nekk gis naa ko ñun suñu parti dañ ne lii mooy suñu xalaat imposé wuñu ko kenn képp koo xam ne bëgg nga ci waxtaan pare nañ pour waxtaan ci moo tax d'ailleurs ñu def ko ci livre parce que concordance bi sa fait six sept mois maa ngi ciy wax mais tey dama ko bind defuma ko sax article dama ko def livre livre mooy pour postérité yàlla mën na def fii ak fukki at ak juróom ñaari fukki at juróom fukki at ñuy waxaat encore ci livre bu mel nii. président Abdoulaye Wade bind na livre boo xam ne un destin pour l' Afrique may bind livre bi liiraat naa livre boobu bu baax a baax a baax kenn du wax président Abdoulaye Wade du tuddoo un destin pour l' nit ñi. bari na ci ay idées yi ay xalaat yu nekk ci livre bi yoo xam ne ñun ñu duñ ci d'accord mais buñ ci d'accordul ñu pencoo bu ñu amee dëgg ci man ñu change te mu ngi commencé d'ailleurs suñu parti tey lañu koy ngénte mais am na ci yoo xam ne ci livre bi ba ma ko tegee si suñu discussion yi ñu ci bari dañ na ma d'accord ñu ak yow ma changé waat ko ci biir livre bi boo xoolee fi may waxee élection am na ci benn parti bu may tudd est-ce que dañu war a wax voter ci Sénégal dafa war a nekk obligation parce que dama jàpp ne Sénégal ñun ay minorité ñoo ñuy jiite c'est-à-dire ñi lay votel pour nga nekk président bariwuñu bariw boo tax ne yow boo nekkee président yaay moome ñëpp ma ni mais est-ce que waruñu def système boo xam ne le vote dafa war a obligatoire mais bi ma waxtaanee ak ñi nga xam ne ñu ngi ci parti bi ñoo dañu ne ma loolu teel na mënul nekk ñu ne argument yi pour ñu def ko lii la ak lii ak lii argument yi pour ñu bañ ko def lii la ak lii ak lii ci livre bi waxuma ci ne sama position donc man dañuy def vote obligatoire mais dama ko poser comme question ne Sénégal dañu war a dem ci ba nga xam ne citoyen bu ne bu vote jotee da nga war a voter waaye nag pour ñu yegg ci dafa am lu gouvernement war a def par exemple problème fichier électoral yi ñu am yépp waruñu ko am parce que fu nit juddoo ci Sénégal war nañ la inscrire war nañ la inscrire de façon électronique bu ñu la inscrire de façon électronique saa yoo amee 18 ans machine ba génne woon sa carte d'identité mooy génne sa carte électeur donc coow li fi am yëpp dafa doon coow loo xam ne ñun ñoo ko bëggal suñu bopp parce que ay tappale dafa am ci biir pour gagner élection loolu mooy dëgg leneen li nga wax ci démocratie de concordance bi bu dee liir nga livre bi te xam naa ne liir nga ko dama jël parti bu rëy boo xam ne dama ko consacré ci lan mooy doon opposition ci gouvernement de de concordance parce que man nag dama bëgg a doon démocrate bëgguma li may dénoncé ñëw di def lu mel noonu gouvernement de concordance maa ngi ko wax université Gaston Berger décembre deux mille vingt mu indi coow gars yi di débat ma jël kenn koo xam ne mu ngi liggéey ak man ma koy remercier ma ne ko duggal ci réseaux sociaux yi ñi di saaga waxuma leen ma leen ak ñoom mais ñi nga xam ne joxe nañ xalaat ci gouvernement de concordance bi ma wax ku ci nekk duggal ci page Facebook nga xool la mu wax nga defal ma ko rapport nga indil ma ko. mu defal ma ko rapport ma gis ne critique yooyu ñuy critiquer ci gouvernement de concordance benn bi ci gën a am solo mooy loolu mënul nekk parce que du ñu am opposition ma ne nag ci livre bi dina tontu ci loolu loolu mooy demo loolu mooy inclusion man maa ngi ci réseaux sociaux yi du tout le temps laay bind waaye maa ngi xool maa ngi liir xam naa li fa xew te xam naa ne ñu fa nekk ils représentent le Sénégal donc xeebuma seen xalaat opposition boobu tey benn naa ko lu mu bon bon ci juróom-benn bu juróom-ñaari pàcc ci livre bi gouvernement de concordance boobu ñuy wax dafay ànd ak système mu parrainage système mu parrainage sénégalais yu bëri d' accord nañ ci mais yuuj njaaj giñ ci dugal ci élection 2019 moo tax nit ñi d' accord nañ ci nañ ko toxalee moo jaarul yoon mais gouvernement de concordance dafay tekki ne bu ñuy dem élection présidentielle dina am parrainage bu 30 candidats déposés cinq ñu jël leen wala boog pour reprendre l' exemple de deux mille dix neuf bu vingt sept déposé ñu jël cinq mais vingt deux ñooñu nga xam ne jëluñu leen mais c' est les citoyens ñi nga xam ne ñooy def le parrainage citoyen ñoo décidé avant même l' élection présidentielle que ñooñu ils sont dans l' parce que on ne les a pas choisis pour qu'ils soient dans le camp de ceux qui vont exercer loolu mooy première pàccu opposition dans un gouvernement de concordance ensuite profiter pour répondre ci cette troisième question bi tey lii ñu mu mag président Macky Sall di wax gouverner ensemble et cetera bokkul loolu la sénégalais di wax transhumance transhumance bi mooy dem nga élection falu ñu la tànn ñu la santaw la nga ji sant ñu la nga jiite nga fexe ba ànd ak kañu fal pour ñëw jiite loolu la sénégalais di woowee transhumance gouvernement de concordance te di ci gouvernement bi ni sénégalais yi tànnee président de la république noonu lañ ko tànnee moom parce que ci constitution bi da naan dinaa def vingt ministères vingt ministères yooyu nga def ko ordre protocolaire nga ni ku gagné élection ba ngay am dama ko joxe ci livre ma ne ki am 60 pour cent par exemple xam na ne dina am douze ministère donc bu résultat yi génnee rek xam na ni dina am douze ministère xam na yan ministère lay am li ci des président de la république moomu donc ci gouvernement de la de concordance président de la république mënul nommer ku ko neex mënul dàq ku ko neex parce que tey parti bu amoon tey 15 pour cent ñu ne la trois ministres nga ci am trois ministres yooyu yaa koy tànnal sa bopp dugal leen ci gouvernement bés bu ñu demee ba ministre yooyu télé président bëgg leen dàq dafay woo candidat ba nga xam ne moo proposé ministre yooyu ñu dàq leen mais pour bañ président abusé da nga naan mën poste ministériel bu nekk mënoo am plus de trois titulaires ci biir sept ans yi loolu dafay wàññi bu baax président la pouvoir du président de la république boo ne tey ki nga xam ne mooy ministre de l' agriculture ci ki jël deuxième la bokk mu ñëw dugg ci gouvernement de concordance ñu dawal six mois président na kii dàqal leen ma ñu dàq ko nga di keneen mu dawalaat 6 mois président ne kii baaxul dàqal leen ma ko 6 ans ya ko dese troisième ba ñu nommé président amul droit dàq ko parce que damay fàttali ni li ñuy wut mooy stabilité ñun dañu tollu ci dëkk boo xam ne dafa stabilité c'est que ñun dañu war a toog nooyi dal liggéey dafa am yoo xam ne moo am ci pays développé bi ñun tollooguñu foofu ñun mënuñu dëkk ci xiiroo ŋaayoo xuloo xeex di guerre xale yi naan na saf comme guerre mondiale ni muy safe ñun dañu toll ci tabax réew dañu soxla xam-xam yëpp dañu soxla intelligence yëpp ci livre bi def naa ci benn proposition j'espère que syndicat yi dinañ xam fi may waxee dama demander ce que j'appelle une clause de paix sociale clause de paix sociale ma ne de grève am na man dama ko nangu liggéeykat buy liggéey kontaanoo am nga droit de grève kenn du bindi dara ci droit de grève waaye ma yi dëkk boo xam ne dañ koy tabax président buy door a ñëw ma ne nañ ko may deux ans na ñëpp ànd def consensus moo ami daam président bu bees ñëpp ànd def consensus may ko temps parce que am na yoo xam ne boo ñëwee rek toog xeex bi commencé xiiroo bi commencé ŋaayoo bi commencé mais kenn du dem loolu Macron mën na ko supporter parce que dëkkam dafa tegu ci raay ñun mënuñu ko ñun dañu war a toog liggéey boo ko mayee nag clause de paix sociale boobu deux ans doxalul boobu wax na nga génn caw yi mais loolu c'est républicain tekkiwul ne da ngay remettre en cause droit de grève mais dafa am benn moment boo xam ne ñun ñëpp dañu war a loolu moo tax ñu ne ñi nga xam ne dañu ñàkk dañu war a être représenté ci gouvernement bi te loolu dafay régler problème transhumance pour ñi di wax naan loolu dafay indi transhumance maa ngi terminé parce que lan moo tax Sénégalais yi homme politique yi di transhumé lan moo tax da ngay bokk ci élection ngeen nekk ñu ne fukki baat la ñuy wut yow nga am ñeenti baat perte ci am juróom-benni baat rawe la ñaari baat kese nekk ci dëkk bi mel ni muy buur mooy bummi lu ko neex mu def alors que yow am na ñu la faral ci dëkk bi yow tekki nga dara ci dëkk bi kooku buñ la jëlee teg la de côté yow ak sa ay nit ngeen nekk ci yenn situation yi am ne xam ne am ngeen xam-xam am ngeen la loo leen réew mi mais kenn joxu leen ko. du ma ne baax na de man d'accord ma pour transhumance na leer nañ mais loolu mooy tax ñu bari jàpp ne que ñoom am nañu ànd ak ñoom ci dëkk bi ce que j'appelle les nuances les nuances de l'opinion publique sénégalaise dafa war a feeñ ci gouvernement loolu moo tax ñi di transhumer mais kooku boo ko joxee doole ja war a am ci biir gouvernement mais soxlawul transhumer parce que dina doy lool la nga xam ne moom la ko askanam jox pour rappeler pour ñu def droit constitutionnel mais lan mooy différence li ñu am tey ci gouvernement li am assemblée nationale ak li am ci local pour ñu xam droit la seule différence mooy assemblée nationale ak local dafa am lu ñuy woowee scrutin proportionnel la nga am lañ la sédd moom nga am alors que ci gouvernement exécutif bi amu ci mën nañu am sañ-sañ ne pour suñu dëkk équilibré proportionnel boobu nañ ko jël dugal ko ci biir gouvernement mënuñu wax lépp fii mais ku lire livre bi li nga gis ne c'est un système qui tient la route te pour ñi koy wax nag jëlewuma ko Suisse yàgg naa Suisse mais du lii du système mu Suisse ku xam système mu Suisse lii du système Suisse. il se trouve que nag boo ne concordance nga tapé Google da gis ne ñu naan Suisse démocratie de concordance la nga ne ah moom kat la mu gis Suisse la fi bëgg a def est-ce que boo ne da nga am gouvernement démocratie parlementaire dañu naan ah, Angleterre nga ko jëlee. présidentielle ñu ne France la ko jëlee c'est un système comme un autre te ñun système bi ñuy proposé foofu laay terminer du ma mën dugg ci détails yi c'est ce que j'appelle une république de composition adduna dafa teelu tey foo xam ne ñun loolu ñuy woowee moom moomal ko suñu bopp mooy suñu sookul ci la ñuy toog waaye nag mënoo ci toog ne du ma xool li xew ci adduna bi foofu nag ngay jël tuuti régime parlementaire tuuti régime présidentiel tuuti régime de concordance boole ko ak li nga xam ne ñun moom lañ am moomal ko suñu bopp mu doon une nouvelle république sénégalaise boo xam ne même bu doxul ëllëg dinañ ko assumer parce que xam nañ ne suñu république la ñun ñëw ko tëggal suñu bopp. mais problème bi ñu am mooy république bii ñu am saful géej saful kaani saful xorom te mënoo ko sax assumer parce que moomaloo ko sa bopp justement. donc je sais pas ndegam am naa lu ma fàtte ci question bi mais tijji nañ ñëpp waxtaan nañ ñëpp dinañ ci ñëwaat tey du jour dédicace dinañu def ay programme pour livre bi ñu présenter ko partout au Sénégal présenter ko partout dans la diaspora dinañ wut ci biir Dakar jour boo xam ne ci la ñuy def séance de dédicace mais que tey temps bi du ko maye duñ ci mën dem donc bu dee répondre naa ci question yëpp ban ci Euh, voilà bëggoon naa xam tey jii aussi système bi ngay euh, proposé euh, un gouvernement boo xam ne y a l'opposition et le pouvoir. y a pas d'opposition. je veux dire ñi perte élection yi. voilà c'est des opposants parce que ils n'ont pas gagné. c'est pas des opposants. d'accord noonu nga ko expliquer amul problème ce que je veux dire mooy ñooñu bu ñu bokkee benn gouvernement est-ce que du indi benn genre cohabitation maanaam bokkuñu woon programme bokkuñu woon ay idées et ils veulent loolu tamit est-ce que parce que opposition mooy koo xam ne tànn ñu la ñii ci constitution bi dañu leen tànn bu résultat yi génnee rek xam nañ ñaata poste ministériel lañ am ci rang bi ñu am xam nañ ña yan ministère sax la ñu am donc kenn tànnu leen askan bi moo leen tànn du opposition. mais li gën a am solo te wax naa ko ci livre bi mooy te loolu c'est une révolution institutionnelle importante tey boo xoolee Sénégal déclaration de politique générale amu fi benn njariñ dañ lay nommer ministre nga dem experts yi bindal la trois mois quatre mois après. nga dem assemblée nationale def sa show làkk sa français yu neex ñu tàccu déclaration de politique générale bi foofu la naax saa yi bi dem la géej sa n'intéresse personne révolution bi ñu bëgg indi foofu la nekk en amont mooy balaa élection yi di ñëw dafa am ñoo xam ne ay candidat lañ dañu am seen programme bu doon élection yi passé da nga juróom juróom ñu ku nekk am nga sa programme ku nekk sa programme boobu dañ koy téye en aval bu ñu duggee ci gouvernement bi bu nekk ku nekk ministère yi nga yor nga indi programme bi nga xam ne moom nga bëgg a doxale ci ministère bañ la dénk programme campagne ba nga yoroon moom la ñuy boole ak programme ministère ba nga yor loolu la ñuy jël gouvernement bi càmbar ko décider def ko programme gouvernemental commun boo xam ne moom la premier ministre di présenter à l' bu boobaa président de la république bi nga xam ne moom la ñu fal du na rek man la ñu fal sama programme laay doxale il est obligé de faire la synthèse des programmes synthèse des programmes boobu moom la ñuy porter devant l'Assemblée nationale comme ni ñuy porter à l'Assemblée nationale la loi des finances document de politique générale boobu bu boobaa dafay nekk un document officiel de la nation qui fait office de programme du gouvernement de concordance de la république du ko mën changer li ma leen di wax nii dañu koy yor di ko xalaat di ko napp di ko niib ba ko duñ ne nag moo fi gën waaye teg nañ ko ci table bi gars yi kaay leen ñu débattre nañ ci bind lu ñu mën a tànn moo gën lii nga xam ne moom la ñu fi tubaab bi baaxul santul yàlla te moo tax mënuñoo dem ñu dëkk ci xiiro dëkk ci ŋaayo dëkk ci xeex dëkk bi demul dëkk bi tagatémbe nañu essayé leneen te je sais que ñii fi nekk ñëpp ñoo mën ñoo bokk parcours te bu ñu waxtaanee dina am côté yoo xam ne ñoo ciy jubóo jërëjëf wa salaam waaw mbokku internet uh, Wassare News ak Dakar Midi gis ngeen ñoo ko gisandoo tey ñu yend fii si uh, place du souvenir uh, àndoon nag kii di Abdou Rahmane Diouf mu doon présenté lii di partem ak lii di um, livre am tuddee ko awale awale boobu nag le retenir comme nom de parti awale boobu nee moom mooy le Euh, la valeur euh, euh, le retour la source xam nga Sénégal bu baax bi Sénégal sans corruption Sénégal bi nga xam ne ca kanam la jëm waaw tey li fi li ngeen fi dundoon ak Wassare News ak lii di Dakar Midi jërëjëf.